ana ki xam lan moo xew si suñu bërëbu fajukaay yi mu wax ma ko ndax fi ma toll nii dama mujj lu naka la ñu mën a tuddee anam yi fukki bébé ak benn yi ñàkkee seen bakkan ca hôpital Abdoul Aziz Sy bu Tivaouane ndax yëfu maa tey la accident la wala négligence jëm ci waa kër docteur wala ay problème yu jóge ci installation yi am ca bërëbu fajukaay yi wala ñàkk mën ak ñàkk xam sa liggéey wala sax ndax bañ a ku nekk ci danger moo ci am ak lan la ñu mën tuddee li xew ci bërëbu fajukaay yi ndax nekkul crime boo xamante ne lépp dañu ko teg ngir mu mën a am wax jooju amaana du lu rëy bu ñu nangoo ne lu ji njaag système de sant bi la maanaam ni ñuy doxalee wér gi yaram bi nga xam ne lépp a jaxasoo te kenn nanguwul gàddu ci ndoddam ndeeteel bébé yi ñu waroon moytoo si suñu bërëbu fajukaay yi musiba yi dafa tegloo te bu nekk daanaka uteeg moroomam loolee nag nekkatul tombee waral ay gaaf ñu ñuy wax ne court circuit la waaye musiba bi gën na sori loolu nañ ko seet ci anam yi ñu installé équipement yi ci bërëb yi ñuy fajee rawatina fa tut tànk yi nekk ndax ànd na ak kaaraange gu mat sëkk mu mel na nag amul lenn lu ñu jàngat ci lakk bi amoon ci service néonatologie bu hôpital bu Linguère am na léegi benn at rawatina mbirum astu soxna ca hôpital bu Louga musiba bi am hôpital bu Tivaouane beneen épisode la rek ci musiba yi ñuy seetaan ak di ko gis bërëbu fajukaay yi liy ñëw nag amul lenn lu ci bett nit ñi enquête moo ci topp waaye enquête bi lu ñuy xamal lan moo waral mu lakk boobee am ci hôpital bi ñan ñoo ko sooke ñan la ñu war a yóbbu ci yoon wala bu ñu jógee ci enquête bi dañuy dàkk directeur bi mu mel na enquête yi li ciy topp lu ñu yàgg gis la amul dara lu ci bees mission inspection ministère bi xam na ne am na ay jafe-jafe ci équipement médicaux yi ak ci installation yi ndax expert yi yëngu ci wàllu protection civile yàgg nañoo artu mbir mi nag ëpp na ba jéggi dayoo bi yoon moom mënuñu dàq ne crime la maanaam dañoo rey ay nit